leen jaajëfalaat bu baax yéen suñu internet di am contentement jën ak jour nee naa leen mbégte bi mooy leen indi li gën a fës si bopp xibaar yi ci noonu nag début bi dama ci ànd ak sama partenaire numéro 1 di Huile Jador ba ko indee nag ñëpp daal di kontaan ndimbalu njaboot da cee teg macaroni bi Jador tekki Mbaye Babacar vermicelle. vermicelle Jador. ak ataaye Jador. Jador nee na leen soo ba suur wala ngeen réer ba suur teg leen seen ataaye double cas mën ngeen su ma kenn du kenn du kenn du Abdou Aziz Ndiaye Al Amin nee naa la jeune la wante li nga xamante ne bii mooy développement réew mi loxo ma ngi ci biir te wax dëgg yàlla nañ ko ñaanal bu baax a baax suñu borom gën koo jàppale ci barke Seydi Hadji Malick Sy ci noonu laa leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal yéen ñi ñuy topp ci Leewtoo TV suñu xarit yépp rawatina mbokk yi nekk ci jaspora bi gannaaw huile j'adore nag ku ne xam na ndox mi. au Kayar mooy ndox mi nga xamante ne bii moom la Sénégal yépp taamu nday Mbàkke li ma jaaxal ci au dégg naa dafa manqué ci réew mi stock bi ñu defaroon yépp jeex na ci boutique yi ak ci magasin yi kon nañu wax au Kayar ñu yokk seen loxo ndax sénégalais yi bëgg nañ au trop. waaw au Kayar yokk nañ seen loxo Assane Waalo dama leen nuyu rek. Ndeye Mbacke di la fay di fay di nuyu Baye Babacar di nuyu internetu Leewtoo TV amaan mbégte jàkkaarloo ñoom pour indil leen li gën a fës ci yi. samedi 22 mai 2021 journal suñu lamb moom xëyee jox dama njëkk ñii naan mën na ko wala mënu ko dina ko def wala du ko def kii di Pape Thialis Faye le boss de Leewtoo TV daan na dem fee ca CNG daal di régulariser combat bi dox ci diggante booy Niang numéro 2 le fils de Dégol l'enfant de Pikine ak Tapha Tine le géant du Baol Mbaye pour le 8 août incha allah. ngay bàkkee loolu démb lañ ko doon amal fële ca CNG Pape Thialis Faye ànd ci ak staffam yépp ànd ci ak ñaari ménager yi tamit ñu fa ñu régulariser li nga xamante ne bii mooy boobule combat. war a am juróom-ñetti fan ci weeru août wante man li ma ci gën a neex mooy combat boobu ténor yi nekk ci làmb ji yépp Tapha Tine ak Boy ñoo ci njëkk a bëri coow li bëri woon na trop ci kañ la ñuy bëri wante Assane léegi leer na gannaaw bañ ko régulariser ñaari camp yi ku ci nekk guerre des mots ba commencé na ndax kenn mayul sa moroom dara. dëgg la Mbaye Babacar guerre des mots bi commencé na ndax kii di agent Tafatine tudd El Hadj Thioune àdduna ci combat bi Bourkhane Wade di manageru Boña de également wax na euh, El Hadj Thioune di agent Tafatine nee ne par A ou B Tafatine dafa war a daane Boña de ndax Tafatine couronne des arènes moo nekk ci euh, kanamam foog mu daane Boy Niang pour mën a atteindre objectif boobu Burkhane Wade ne ko xawma ma kan waaye Tapha moom du danger ci mbër mi di Boy Niang kon guerre moo mots commencé na Mbaye Babacar. ayca ca loolu nag promoteur ba di Pape Thialis Faye la mu ca bëgg mooy def seen face to face nar a nekk seen première face to seen première jàkkaarloo ñaari mbër yi Tapha Tine ak Boy arène nationale lañ koy organiser assan wante dañ koy def entrée payante mu nekk entrée ba nga xamante ne bii entrée bu oyof lay doon ngir bañ li nga xamante ne bii moom mooy cambar cambar ak violence. dëgg la Mbaye Babacar euh, kii di Tapha Tine ak Boy Niang dañu daje Joal. dafa benn face à face mu am euh, xaw temps am tension. loolu nag la Pape Thialis bëgg a éviter moo tax mu bëgg a jógu seen prochain face à face foofu ci arène nationale ba pare def ko entrée payante entrée payante nag boo ko déggee du doy da ngay joxe xaalis bu bëri pour mën a am billet. benn euh, somme symbolique rek ngay dagg pour mën a seetaan face à face bi tranquillement ñëpp mën a ñibbi si jàmm sécurité bi mën a doy ba kenn euh, du fa jëlee loolu naxadi incha allah. ca noonu nag lamb dina amee le 29 août incha allah di dox ci diggante Reug Reug ak nga xam ne mooy guy gi mardi simple fee nag TFM Mbaye Babacar mm-hmm. dañ fa def amal seen face to face dimanche bi nii ca Louga ca TFM lay amee ñu ñaari mbër yi fas yéene jàkkaarloo Assane fa yéene weccante ay kàddu li naan bataille psychologique war a commencer diggante rëg-rëg ak guy gi yaakaar naa dina nekk jàkkaarloo bu tàng jër. dëgg la Mbaye Babacar euh, combat boobu Sénégal Entertainment Group bi nga xam ne nii ci groupe Futurs Médias la bokk ñoom ñoo tëgg combat boobu war ko amal le 29 août bi di ñëw comme ni nga ko waxee nag suba ci dimanche bi à partir de 21h guy gi ak rëg-rëg dina ndaje ci TFM pour def fa benn face à face bu tàng loolu nag moo nekk seen premier face à face depuis ba combat bi commencé ba ci noonu nag nga nar a jàkkaarloo nar a janoo lundi incha allah ci arène nationale mooy ki nga xamante ne mooy Rambo ak Boy Kaza Mbaye waaru ka Serigne Modou Niang nag moo joxe ndewenal boobu amateur yi. moo Modou Niang di promoteur ba nga xamante ne bii xale yi nekk ci làmb ji yëpp. ñu ràññee leen ci bokk na ci ñi leen njëkk tëdd tëgg sëriñ Modou Niang di euh, borom Moñang production moo fas yéene tëgg incha allah Assane altine foofu ca arène nationale. dëgg la Mbaye Babacar ginnaaw bi nu toogee un mois combat amul ndax koor gi léegi nag activité lutte avec frappe bi reprendre na kañ euh, di muy gannaaw suba sëriñ Modou Niang moom moo woo amateur yi foofu ci arène nationale pour jox leen ndéwénal te combat bu mu leen di présenté nag mooy war dox ci diggante Rambo ak Boy Kaza combat spécial bi onge bu yoof ak booy Sey ñoo koy bëree le jour ji. te noonu nag ña war a bëri te ki xam ne mooy mooy box arena ñoo ko tëgg borom 5 mm-hmm. mu koy menacé ci biir suñu lamb. Garga de ngay menacé Mama Lamine nee na ko dama jóg gëjoon ci làmb ji te maa ngi ñëwaat te su ma ñëwaatee amul menn mbër muy taxaw ci sama kanam te duma la fallaxe dëgg la Mbaye Babacar Garga 2 ginnaaw bi mu jógee écurie Dóor Dóoraat dem écurie euh, euh, euh, kii jàmbaar bu Papa Sow bi Euh, moom nag mu ngi dem ci premier combat ci nouvelle couleur am yooyu ndax mi ngi war a jàkkaarloog Mama Lamine le 9 juin 2021 combat boobu va Vox Arena ñoom ñoo ko tëgg Mama Lamine nag mi ngi fay avertir euh, wala Garga 2 mi ngi fay avertir Mama Lamine li nga ko wax mooy euh, dafa bëgg signer benn retour tonitruant ci làmb ji ndax dafa jógee ci woon ay tolof tolof te combat bi waru ko fooye te dafa war dikk pour am victoire kii ci kaw Mama Lamine donc Mama Lamine Euh, euh, euh, ba garga de mi ngi koy avertir bu baax. mais Assane du nekk combat bu ya bu yomb ndax ku ne xam na ne Mama Lamine mbër waada la. Mama Lamine mbëru aada la ba pare jógee ci ay tolof tolof te bëgg jël bëtam teg ko fu sori donc le jour ji dina def kéemtalaay kàttanam ba am ci victoire pour mën a avancer carrière bu baax a baax. Mhm. ñoom ñaañ doon Mbaye Babacar ku ci daan rek say bunt daan say bunt ubbeeku mhm. ginnaaw ba mu bàyyee làmb le roi des arènes Yaxya Diop Yékini bàyyiwul. boobu dafa tekki ngeen moom mbay waaye bàyyiwu lam ba tax na dayam fee ca ñaaxa daal dafay wóotu lutte simple tey ji ci sax samedi teg fa 3 millions de francs CFA loolu tey la doon fële ca ñaaxar wax nga ko Yaxya yëkk ni moo fay woo mbër yi ak amateurs yi gannaaw ba mu bàyyee bëre bàyyiwul làmb parce que mu ngi continuer di tëgg li nga xamante ne bii mooy ay làmb euh, rakkam yi nekk ci làmb ji mën di bëre Assane Ndeye faatu aadama Jali moo koy animé ak Maodo fay dëgg la Mbaye Babacar ginnaaw bi ñu déggee daali ci làmb ji Yaxya Diop nekk roi des arènes trophée yi nekk ci làmb yépp mu jël ko ba mu paree nag daf na la conversion ci euh, promoteur la may def nekk promoteur di tëgg ay gala de simple. tey nag ci samedi bi mu jëm ci ñaaxar lan la leen fay defal benn mise trois million comme ni nga ko waxee Ndeye Fatou Adama ji leen moo la fay ñoom ñoo koy tëgg li ci moom mooy da ciy ànd ak euh, seen bi la couverture maladie universelle ñoom ñoo koy jàppale ci xew yi pour que ñu mën a am euh, benn événement bu neex tey jii ci ñaaxar. kon daal tey jii ca ñaaxar mën nañoo xaar làmb ju neex wante làmb ju rëy ndax mise ba moo ni toll. mise bi moo ni toll mais également ki nga tëgg moo ni toll yëg ni bu wootee. mbër yi simple yëpp dañ koy dem fekk kon mën nañ fa xaar ay ténor tey jii foofu ci nga xam. incha allah mu noonu lu ci mën a amee ca làmb ruuse ca làmb jooju rek suñu ay nit mhm. ku mel ni mbay baabu kat leen daan dem jël leen ko mhm. ca loolu nag Adrien Senghor lañu jëm Boucar moo woote ak ki nga xam ne mooy Mame Koor teg fa 1 million Boucar daal di fay teg 500 millions mbay baabu kat Boucar moo ànd ak fans club Reug Reug nga xamante ne bii ñoom dañoo bëgg a sargal champion bi di Reug Reug incha allah Assane loolu ci adresse sa lay doon. Eh, dëgg la Mbaye Babacar quatrième ak cinquième journée arène Adrien Senghor maanaam tey ci samedi bi ak suma ci dimanche bi. te ci samedi bi euh, Boucar euh, mi nga xam ne nii euh, structure am mi ngi tudd Boucar Reug Reug production ba mooy mise tey 500000 foofu ci arène Adrien Senghor suba ci dimanche yi beneen promoteur bu tudd Maam Góor moom moo fay teg 1 million Maam Góor moom nag Mbaye Loum ak Pape Ndiaye Karak ñoom ñoo koy animel glam boobu. ba léegi nag samedi lañuy desandi galaa yi nar a bari nar a neex. Mhm. CRG bu kaw la daal di day woote lutte simple teg fa li nga xam te ne mooy mise loolu li ko waral ku ne xam ne ne Kaolack mu ngi préparé organiser drapeau chef de l'état ñoom nee nañ li tax ñu organiser tourne kii euh, gala de lutte boobu teg fa 3 millions dañoo bëgg lépp lu luñ ci amee retombé bu ci jógee ñu mën koo waajal lu bu baax a baax li nga xamante ne bii mooy organisation bu mag boobu nga xam ne réew mi yëpp lay dajale. exact euh, Mbaye Babacar Mame Kor Faye moom mooy président CRG bu Kaolack. ba ko ko falee nag yàggul mais li bokk na ci ay première activité am euh, ci euh, kaw euh, CRG boobu moom nag moom moo fa misé tey 3 millions ci samedi bi incha allah Leewtoo TV dina dem lépp lu fa xew mu indi leen ko kon tey ci kaw la benn mise 3 millions waa CRG bi teg ko pour préparer seen drapeau chef de l'état bi nga xam ne mu ngi am semaine bi di ñëw foofu ci kaw la incha allah. incha allah ca loolu nag drapeau moo nekk capitaine mooy écurie Thiès la mu bëgg nag mooy garde titre li nga xamante ni mooy seen revanche individuelle ñun dara koy jël. gannaaw ba ñu jëlee drapeau chef de l' état daaw Thiès ñoo ko jëloon foofu ca Mbour foofu lañ ko mujjee amalee en 2019 euh, kii di Libidor di capitaine équipe bu Thiès li mu xëy wax ci journal bi mooy seen titre boobu lañ bëgg a sauvegarder bëgguñu kenn ku ko laal dañ ko bëgg yóbbu indiwaat ko cees gël Mbaye Babacar édition bi doon drapeau chef de l'État mi ngi xewoon ci Mbour en 2019 boobu nag région de Thiès moo fa gagné woon de Dakar 5-0 Libidor mi moom moo nekkoon seen capitaine moom moo amul woon defet benn defet la amoon te euh, au point euh, lañ ko ko gagné woon donc laalul suuf durant tournoi boobu la tey nag moo fi xëy di wax seen objectif ci euh, édition bi nga xam ne nii mi ngi war a amee ci Kaolack les seen objectif moom mooy ñu garder couronne bi mais également individuellement moom mu jéem a jël trophée te noonu nag kii di Pape Ndiaye promoteur la fa muy ubbee saison mooy Diourbel yan combat France nar a taxawal doomu Mbacke Mbaye Babacar ak Cheikh Niang. Pape Ndiaye borom euh, Pape Ndiaye production di promoteur ba nga xamante ne bii moom tamit waa Diourbel bu ñu namul nammul Serigne Modou nam nammuñu Gaston Mbengue nammuñu Pape Thialis Faye nam nammuñu Luc Luc Nicolaï Papa Ndiaye promoteur mi moo tax ndax xale ya nekk Jurbel yépp ñu ràññee leen ci làmb ja Papa Ndiaye moo leen génnee incha allah mu fas yéene tëgg première journée le 23 mai. foofu ci stadium Ely Manel Fall doomu Mbàkke di fa bëre ak ki nga xamante ne bii mooy Cheikh Niang muy combat ba nga xam ne expérience la ak la jeunesse Assane. dëgg la Mbaye Babacar Diourbel foofu moom ah, voilà donc comme ni euh, seen promoteur moom seen wala seen Pape Thialis Faye. Mm. moo fay woo amateur yi ci dimanche bi war fa euh, a dox ci diggante Cheikh Niang ak doomu Mbàkke. ca noonu nag ki soq. ak Gamou Gueye war ñoo def seen face to face baaba Babacar tey ji ci samedi bi. Sokh ak Gamou Gueye nekk combat ba nga xamante ne bii Ndeye Mbacke combat du ko dàq. ci li nga xam ne moom mooy saison bi ñu war a jàkkaarloo tey nag Assane bu ñetti waxtu jotee foofu ci sumb dëgg la Mbaye Babacar Baba Diaw moom moo tëgg combat bi war a dox ci diggante Sokh ak Balla Gaye numéro le 6 euh, juin la ko tëgg la ko war a tëgg foofu ci arène nationale tey nag ñu war a def seen face à face foofu ci village artisanal bu Soumbédioune à partir de 15h ñu fàttali ne combat bi waroon am le 14 mars mais euh, ci veille bi maanaam ci euh, benn démb la la lan arrêté woon activité diggante Expo TV bi ndax euh, coronavirus bu duggoon ci Sénégal. te noonu nag lu simple kii di Burkina Faso Mbaye Babacar. Mhm. moo daal di invité waa équipe nationale bu Sénégal. waaw invité na Sénégal wante yemu ci kese invité na Togo invité Bour eh, invité eh, Côte d'Ivoire invité na équipe Niger ak Sénégal mu nekk tournoi ba nga xamante ne bii benn festival assan moo am foofu ca Gambie eh, tournoi bi nag ñetti mbër ñoo ko réew mu nekk ñetti mbër ngay andi Sénégal yóbbu na booy fay ordinateur ak Abasé. dëgg la Mbaye Babacar festival culturel la mais festival bi day am lamb. waa Burkina Faso ñoom ñoo koy organiser invité ci nag équipe nationale bu Sénégal. Mm. jógee nañ fii depuis démb dem foofu ci Burkina Faso comme ni nga ko waxee compétition bi cinq pays ñoom ñoo ciy compétir pays bu nekk di nga indi sa trois litres. Mm. Sénégal donc booy fay ci cent vingt kilos yi. ordinateur ci 100 kilos yi ak Abou Assef ci 86 kilos yi ñoom ñooy représenté Sénégal ñu fàttali na délégation sénégalaise bi xalifa euh, Sall Khalifa Sow du t DTN bu CNG ak Ambroise Sarr ni coach su équipe bi ñoom ñoo ànd ak euh, mbër yooyu dem foofu ci Burkina Faso. xanaa ñu ñaanal leen rek nday Mbàkke suñ borom defal leen fa ndam ndax réew mi la ñu teewal foofu. Mhm, seen ndam suñu ndam la. Mhm. mu ngi noonu Assane dama lay bu baax mbay looy tàggatoo. jaajëfal ñëpp kontaan ci ñi nga xamante ne bii ñooy suñu xarit yi ñu doon topp ci Leewtoo TV dig leen daje incha allah suba jàmm wante bu leen ko fàtte tey maa nga ñaaxar nday Mbàkke ma nga Kaolack ñaari làmb yooyu ci nekk 3 millions lañ fa teg lépp lu fa jógee da ko am en exclusivité sur Leewtoo TV. mu ngi noonu nag Assane Mbaye Babacar Mbaye Babacar yaa ngi ñaaxar Ndeye Mbacke mi ngi kaw Kaolack waaye Mansour Magne Bro mi ngi Adrien Senghor ci gala Boucar bi incha allah même Sokh sax bëgg nañ ko couvrir pour dire que ne làmb fu mu nekk Leewtoo bëgg na dem teewal leen indi leen ko fu ngeen bëggee xew-xew bu làmb amee rek incha allah bu ngeen ñëwee ci Leewtoo di ngeen ko fa fekk. si noonu may remercier waa Linguère remercier Ndeye Mbacke équipe bu Leewtoo TV yëpp di leen mu ngi noonu nag Leewtoo mooy waaru làmb ji Mbaye Babacar. bu oh. bëgg xool làmb rek da ngay daal di xool Leewtoo di insister naan kii internet yi abonné leen yokk leen abonnement yi bu baax. Oh. ngeen topp ñu fu làmb am rek incha allahu rabi dinañ fa daal di dem indil leen ko ngir seen mbégte ci noonu laa def tàggatoo ak yéen leen jox dig daje ëllëg incha allah ci Leewtoo TV.